bisimilah mu dee laaju mbokk mi ci tegu muy laaj nisaa bi xaalis nisaa bi xaalis day borom xam-xam yi am na ñu ne dañ koy xool ci jimmi xaalis ndax mooy cosaan le mooy xaalis yi boo demee ca tëgg ba bijoutier ba da nga koy laaj cinq cent quatre-vingt-quinze xaalis xaalis bu sell ñaata lay tolloog ci xaalis CFA loolu nag biñ ko mujjee gëstu mu ngi tolloog deux cent vingt-huit mille deux cent vingt-huit wala jàpp Euh, deux cent trente mille laa bëgg a wax ñoo ngi jégalu deux cent trente huit mille jàpp deux cent cinquante mille diggante boobu la nekk. am na nag ñu ne comme xaalis dafa wàcc dañ ko war a xool ci or waaye nag lay cosaan daal muy di ko xool ci xaalis kon wax jooju day mel ne mooy la gën a lëng teewul nag am na ñu def ijtihaad ne or comme or li muy wàcc bariwut te xaalis day wàcc tey deux cent cinquante mille wala deux cent trent huit mille daa bariwut nit mën na ko am ba noppi nekk fo nekk faqiir kon daal nañ koy xool ci or ndax or moom benn gramme bi rek dana jar seize mille cinq cent wala seize mil kon bu dee or quatre vingt cinq grammes yi or lay doon lool nag mën naa nekk un million trois cent soixante jàpp un million cinq cent euh, waaye nag la gën a lëng daal mooy di ko xool ci xaalis bi ku ko def rek def nga lañ la santoon teewul nag ku ko xool ci wàllu oor bi nga ne mooy ëpp tamit incha allah xalaat la ab gëstu la wallahu taala alamu sawaab bisimilah bu dee laaju mbokk mi ci tegu mu ne jullit bu faatu ci weeru koor ndax dañuy dogu ne day texe déedéet deesul dogu ne day texe ndax loolu mbirum suñu borom la waaye nag danañ am yaakaar lool danañ rafet njortu lool bokk na ci mujj ko rafet mooy koo xam ne dafa faatu faatu ci weeru koor ndax weeru koor saa borom subhaanahu wa taala yu njëkk yi ak njéggal la fukki yi des di yërmande fukki yi des di goreel yàlla day da ciy goreel ay jaamam sawara incha allah kon nag ku ci faatu danañ ci rafet njort lool waaye nag mënee sujaa doog nag ne faaw rek daa texe wala ku ci faatu rek léppam baax na déedéet ndax yéefari ñi ngi ciy faatu te jëriñu leen dara wallahu taala alam mu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj poos ay xef wala gerefaas ndax dagan na tont li mooy déedéet benn dëgganu ci puus ay xef moom day soppi bindub yàlla fala yugayyirunna xalqallah seytaane moo ne woon saa borom doomu aadama mi tax nga dàq ma génn ma ci sa yërmande dinaa la woon ne jëru ko ndax dinaa leen jay ba bind bi nga leen bind danañ ko xeeb di ci jéem a yokk teg greffage li muy tekki rek mooy yàlla karaw gi ma bindal dafa gàtt gërëmuma ko léegi dama bëgg karaw yi tubaab yi am wala karaw yi naar yi am loolu xeeb sa bopp la naka noonu pom monte ay xeef moom waxaale ma ko kooku moom waxaale wuñ ko moom it noonu la mel eh, eh, greffage dëgg la jëmmi karaw gi nii waaye ñuul dara defe naa Sëriñ Muntaxa Mbàkke bi muy tere rek boole ne ko ci yim tere jëmmi kii bi ngay këppoo nii xëy na waaye ñuul dara ndax du jàpp du la tee waaye nag boo ko këppoo ba noppi da ngaa war a muur sa bopp jigéen daa war a muur boppam te genn jigéen nag du jënd gerefaasam deux cent mille deux cent mille wala trois cent mille teg ko ba noppi muur ko déedéet ndax ndax ba mu koy jënd da ko bëggoon a sañsee da ko bëggoon a teg génn mu rafet nit ñi xam ne rafet na te lislaam loolu la ko tere kon nag daal yooyu yëpp comme da lay xëcc di la yóbbu ci bakkaar xanaa bu fekkee jigéen ji moom dong moog jëkkëram ñoo toog mu teg ko ah suba kon loolu dee su ko yox dara te kenn du ko jënd it ngir di ko tegal sa jëkkër faaw da nga ko tegee da ngay bëgg génn nit ñi gis na rafet na defar ko ba mu rafet ñu gis na rafet na waaye kenn du ko du ko jënd ba noppi teg muur sa bopp kenn du ko def te loolu lañ leen sant wallahu taala aalamu sawaaba kon ñoom ñaar benn dëgganu ci bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim fa seene dimbali ko suñ borom ci tontu laaji fii jotorot ci kàttanul yàlla mu dee laaju mbokk mi muy laaj kuy bëgganteeg jigéen di ko may xaalis wala muy am soxla di la ko wax nga di ko fajal ba mu yàgg mu dem sëy keneen ndax dalaa war a fay xaalis ba <laughs> déedéet waru laa fay dara magum jëm mu koy boo jekkee jekk jël sa xaalis di ko jox nit incha allahu rabbi mu sedd sa xol nii ko may gu njëkk la nii ko tar lu da koo bëgg rek mu de mu de ñaan nga di ko may loolu du fay dara. bu fekkoon nag alali sëy ja la mooy alal ja nga xam ne bi nga ne damaa bëgg diw ñun la kon may ko nangam li ñu tuddee may gu njëkk nga yëkkati téeméeri junni wala trois cent mille jox ko alal joojee moom faaw dañ lay may jabar wala ñu delloo la ko waaye am nag koy taxawaalu rek ndax di bëgganteeg ni di dem noonu benn dafa xaraam lislaam mayul kenn ngay bëggante di dem déedéet ngay labat li lislaam xam ci labat mooy dem ci ay waajur waxtaan diggante boobu la ñu tuddee labat waaye di ànd ak moom di ko jëndal dara di ko lu ne nga di ko defal kooku moom fi dof la rek yaa ngi yaa sànni sa xaalis incha allah lépp loo ca perte yaa ko perte sa bopp magum jëmm moom bu jëlee xaalisam di ko jox jigéen incha allah te ab sëy duuxu fa dara duuxu fa lislaam tiggu ko ko kenn tiggu ko moo jékki-jékki di ko def wala ngir xëy na bëggam ko bëgg kooka nag bu demee moom yàgg yàlla dogal kooka dem sëy keneen it da koy perte rek ànd ak loolu lépp nag jigéen it bëgguñu bu ko wóoree ne kii bëggu ko wala bëggu ta sëy moom nag jarut muy dara muy jël dara ci alalam incha allah loolu moom dëgganu si jigéen ji mu dëkk jël waaye daal góor ga daal moo ñàkk fayda ñàkk fayda boppam ba jël xaalisam sànni ci àll ba kon dangaa waroon xaar euh, bañ may wala boog bañ laaj la àll say sëy wala boog nga ne ko ah, moom daal bu fekkee da ngaa bëgg baal ma yónnee su ma xasee ba yónnee nag buñ d'accordee man mën naa joxe may ku njëkk loo bëgg a def def ko ci boo bëggee téléphone loo bëgg def def ko ci su boobaa nag àll li sëy la tudd waaye képp nag moom ngir bëgg koo bigal loolu nag loolu xasee may moom ñàkk nga ko wallahu bismillahi irrahmani irrahim waaleykum salaam wa rahmatullah mu dee laajo mbokk mi mu ne luy atteb julli ci seize julli toog ci kaw ab seize atteb julli ci seize day mooy atteb julli toog rek ngoog ab atteb mi ngi nekk ci bu fekkee dafa lottu ci ya ko féete kaw maanaam mënta taxaw jonn di julli incha allah te it mënta taxaw wéeru kon su boobaa la ca tegu mooy toog baña weeru wéeru bu fekkee toog bañ a wéeru amul nag la ca tegu mooy toog weeru toog wéeru nag mooy tollook toog ci ab sees kon daal julli ci ab bang mook julli toog yonent bi salaa salaam hadisu imran ibnu Xusin ba ko laajee mbokkam moomee nga xam ne daa mënta julli di taxaw yonent bi salaahu salaam ne ko salli qaiman fa in lam tastati wala fa in lam yastati fa qaa'idan na julli taxaw bu ko mën na na toog na toog nag ci la borom xam-xam yi xiyaasaale ne comme toog rek lañ wax incha allah toog ci ab bàng lu mën a doon rek loolu atteb toog la waaye nag loolu moom bala moo balaa julligee baax faaw day mën a bañ a taxaw même bu fekkee mën naa taxaw weeru mu toog sax du tee baax na ndax diggante taxaw weeru ak toog bañ weeru dañ koo sopp rek bokk ci yi nga xam ne dafa nekk waajib incha allah tayit bu manee toog bañ a wéeru mu toog wéerut du tax nag julli gi yàqu incha allah kon daal julli ci bag moom lu dagan la bu fekkee ne taxaw jonn ga moom euh, mënu ko incha allah rabbi wallahu taala alamu sawaaba alhamdulilah bu dee laaju mbokk mi mu ne koo xam ne bi muy doog a nekk mu kallaf da daawut julli am na julli yu bari muy yu mu bàyyi woon mooy laaj nu mu koy def da koy fay julli moom heure boo ko bàyyee benn benn benn euh, solution rek moo ci am mooy may fay rek nu mu mën a toll it da koy fay ba keroog mu mat rek incha allah rabbi mu doon ñaari at laat dana fay boru ñaari at kooku moo la sëñ Tuubaa na fa kullu fii kulli yawmin salla xamsan min al ayaami fil musalla fa innahu laysa min al mufarridin bal innahu yuaddu min mujtahidin tuqdaa kama fatat fa waxtul xadari fa xadarun waddid waxtu safari ci aljawharu nafis kon kooku fay rek mooy atte bi waaw day def heure bu julli bu jullee suba julli juróomi julli fay juróomi julli bu julee tisbaar fay juróomi julli nga ne bis bi dana ci juróomi fan soo dee loolu bu ko defee rek ah, tabarkàlla eh, fay dana gaaw waaye nag fay rek lay doon nag moom amul beneen at bu dul fay wallahu taala mu dee laaju mbokk mi mu ne ñaar ñoo xam ne dañoo lebalante kenn ki daa lebal moroom ja bor mu mel ne ñoom ñaar ñëpp dañ ko fàtte maanaam kenn ku nekk fàtte nga la kay leble fàtte na lam leble woon kay fay fàtte na lam fay lam war a fay gannaaw ba ñu dee ca xuloo waaw ñooñu de dañ leen yéewanoo yéwanoo yéwanoo loo mooy ñu xool loo xam ne jàpp nañ ne la gën a wóor daal mooy lii la tañ baalante àq buñ ko mënoon nag dañuy dem ci attekat am na masala yoo xam ne moom mu lay succee tontu waaw wala déet attekat loola ñu wutoon attekat am na lu leer loo xam ne boo ko defee dañ naan la lii mooy atte bi am na loo xam ne nag xuloo lay doon ak werante kooku moom dañuy dem ci attekat ñu déglu leen ba keroog attekat bi jël ca décision attekat nag bu amul mbooloom jullit boroom xam-xam bu toogee am ay kilifa war ko mu déglu leen ñoom ñaar lu mu ca àtte rek loolu mooy la wér mu dee ñaareelu laaj bi wala ñu def ko beneen wakaal wallahu taala alamu sawaab bisimilah bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi ne koo xam ne dafa njaaloo ak jigéen ba jigéen ji ëmbu ca wala yaasu billah mu ne waaye ba mu amee doom ñu teg ca fukki fan rek may ko ko ndax may ko ko dana wér waaw may ga dana wér waaye lu jiitu may ga nag dañoo waroon jiital tuub dañoo waroon a jiital tub bala ñoo wax bala ñoo wax waxi danañ ko ko may wala duñ ko ko may lañu ñu waroon njëkke rek mooy fexe ba ñoom ñaar ñu tuub ba yàlla jéggal leen lu rëy loolu ñu def ndax du yëfi caaxaan amaa jëmmi sëy ba nag boo xasee ba am doom rek mënees na ko maye moo xam ka ko uh, tegan loolee ka daloon wala kay ab jàmbur ko bëgg ñoo ci yemoo ndax foofa la am mooy istibra laab loo fa am istibrab ko ëmb nag mooy mu ëmbi la mu ëmboon jeex na bu xasee ba ëmbi rek jeex na mënees na ko maye nit ñu bari dañ koy masale mi dañ koy jaawaleek nag bu fekkoon ne daa am jëkkër mën a dem njaalo ba ëmb ca nga ne ëmb ba njaalo la jëkkër ca fase ko su boobaa nag moom bu amee doom du tax mu mën a dem boo amee doom faaw day day iddawu moom la Cheikh Mouhamadou Bichar waxoon ne taataddu baadal wati kal mutallaq day iddawu ginnaaw bu amee doom ba noppi waaye amma bu fekkee célibataire la woon rek kooku moom bu amee doom rek jeex na ma des na ko maye wallahu taala alamu sawaaba bismillah bu dee laaju mbokk mi mu ne koo xam ne da daan sol tubéy di ca julli ba mu yàgg mu fàttale ko ne tubéy joojee mu daa sol di ca julli kat dafa taqoon sobe waaye loolu julli yëpp baax na julli yëpp baax na dara waru ko moom kañ la yàq julli mooy bu fekkee yaa ko tey sol ko wala ngay julli ba ci biir nga fàttali ko ne sa yére yi am na sobe subaa kon julli nga day yàqu bu fekkee waxtu sax yaatuwut ok bu fekkee waxtu yaatu na waaye bu fekkee da nga kaa julli solli da koo sol julli ba julli jeex nga koy doog a fàttali ko rawatina mu am ay fan nag julli nga baax na dara nekku ci julli yëpp baax nañu bu dee ñaareel laaj mbokk mi ne day gis jigéen buñ ko buñ ko dee maye can nga ñuy joxe ca jàkka ja ñi di ko jël naan nañ ko jox ndaw si mu jënd ci ab yére wala mu jënd ci nangam waaw loolu moom wàllu aada ak bëgg lu rafet waaye loolu moom yoonu lislaam nekku ci lislaam moom ba nga xasee ba joxe can rek jeex na alali jigéen gi la bu ko neexee mu lekk bu ko neexee mu jënd daal bu ko lu ko neex jënd mag ñi nag yooyu seeni xalaat la ak seen i gis-gis yu rafet rek haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wallahu taala aalam wa raddu ilayhi aslam mbokk yi loolu mooy laaj yi fi jotoon rot lépp lu ci jub ci yàlla képp képp képp kese la lu ci dëng nag loola moom du nekk kiimaan ndax ci doomu aadama la bàyyi ko te doomu aadama ku doye rawatina nag man mii nga xam ne maa ci doon jéemantu inna wonnu illa wonnan wa ma nahnu bi mustayqinin allahuma salli ala muhammadin wa sallim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala dafa seene dimbali ko sun boroom subhanahu wa taala ci tontu laaji fi jota rot ci mazhabu alimaamu malikin rahimahullahu taala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim bu dee laaju mbokk mi mu ne menn mbokk ngi nii moo xam ne dafa leb xaalisu banque ni ki mu dem leb fa un million ci misaal bam noppee nag di ca liggéey bu bu ca yëkkatee dara di ko sorax di ko saraxe am ku ne ko jëru nga ci saraxe ndax doo ci am benn tuyaaba waaw awalan euh, li mu war a njëkk góor lu mooy bu dee banque bi mu leb banque riba la mooy banque boo xam ne boo ca lebee dañ la ca yokkal wax ne bokkut ak banque islamique yi li ñuy tudde at tamwil al islami dafa am finance islamique finance islamique mooy banque islam moom bu lay lebal ndax tërëwuñ banque yi ñu am bénéfice ndax bénéfice moom mënta ñàkk ndax moo mag du sëgg euh, ci yàlla naa dee ni ko olof yi waxee waaye nag bénéfice ba na jaar ci yoon l'islam bañul bénéfice wa ahalla llahu al bay'a la wax bu dee banque islamique yi seen finance dañ koy dëppaleeg l'islam loolu mooy ñoom duñ duñ la lebal xaalis waaye matériel lañ lay lebal ci misaal boo doon damaa bëgg a tabax kër dañ naan la demal ci maçon ba mu wax la li nga soxla lépp nu mu toll mu dem ne la soxla nga nangam ci ton nangam ci ciment nangam ci xeer nangam ci suuf mun la yóbbu ko ca commerçant ba mu xool benn bu nekk lu muy jar nga yóbbu ko ca commerçant ba mu bindal la facture notel na ne lii nangam lay jar banque bi nag bu ñëwee danaan la commerçant bi euh, tonu fer bi ci misaal mi ngi koy jaaye cinquante cinq mille man nag euh, su ma ko jëndee ci commerçant ba noppi man mën naa la koo jaaye cinquante six mille ci misaal wala cinquante sept mille tonne bu nekk boo ne d'accord naa ñu bind mu def ko noonu lépp ba mu jeex banque bi nag moom mooy dem jënd matériel bi ci commerçant bi fay xaalis bu noppi mu jaayaat la ko nag yokk ci loolu moom dagan na amaa bu dee ci banque yi ci des nii banque tubaab yi nga dañuy jëfandikoo riba la ko lebe kon loola am na ci bàkkaar bu rëy loola àdduna bu mu jaral mukk ab jullit muy jëfandikoo xeeti leb yooyu ndax banque yi riba la ñuy dunde ca façon lebal bañ koy lebal lebal la boo xam ne day ànd ak riba te riba nag mi ngi mel ne nga jël am soow sotti ca am am saw wala deret ba nag bëgg bëgg koo tàqale mënta nekk heure boo naanee soow rek moom mu wóor na naanaane nga sobe sobe su bon riba lu bon la nee nañu bokkaale yàlla rek moo ko gën a rëy ci xeetu bàkkaar yi tey day yàq doomu adama kon nañ ci bàyyi xel teewul boo demee ci banque yi lebal ya jullit ko fees dell boo demee ci kartukaay jullit yaa ngi ko kon loolu war a njëkk lijjanti ba noppi bala moo lijjanti la ko waaj a wax lam def daal lu rëy la teewul nag buñ ko lebalee ba mu leb jëflante ba moo xaraam waaye amaa xaalis bu ko lebal moom xaalis ba du jëmmi xaalis riba xaalis bu ñu yëkkati ko la jëmmi jëflante ba mu jëflante ci riba loola moo xaraam waaye xaalis ba nag xaalis bu ko lebal la mu war koo fay kon nag bu ca saraxee du rek incha allah bu sellalee du mu am ca tuyaaba waaye nag daa wërta leb ci banque ba ba di ca saraxe sax incha allah rabbi wallahu taala alamu sawaab bismillah mbokk mi ab laajam mu ne ñaare ñoo xam ne dañ doon jëndante ak di jaay mu mel ne jaaykat bi war na koo delloo léegi ñuy sikk sàkk nag ndax delloo naa la wala delloowuma la waaje tamit moom it léerul ndax delloo nañ ko wala delloowuñ ko waaye ñoom ñaar de la tane mooy ñu def la gën a wóor te baalante xaq mooy commerçant bi ne ko ah jëlal rek jëlal ñaar fukki yi rek léegi nag bu fekkee delloo woon naa la man baal naa la ko xaq wala waa ji ne ko amul solo xëy na delloo nga ma ko waaye bu fekkoon ne delloo ma ko tamit baal naa la ko xaq wallahu taala alam bisimilah waaleykum salaam mbokk mi laaj imaam joo xam ne da doon jiite daal di yokk julli ga kon daa waroon na su jot da salaam baada salaam imam ba daal di juum daal di sujjoot xabla salaam nee na ba mu noppee ñu wax ko ko nag waaye daal defaraatu ko ah waaw waaw amut lu mu cay defar imaam jaa wax dëgg amut dara lu mu cay defar même bu fekkee ne loola am na baax da la war a def def xabla loola tuddee julli ga baax na kon amut dara lu mu ci war a defaraat ku juum war def baax da def xabla wala nga war a def xabla def baax da loola dara nekku ci day àggale ak julleem rek dara du ko waraat du sujjootaat dara du ca war wallahu taala alam bismillah bu dee sëriñ bi mu ne day dégg ci waroom xam-xam yi ñu wax ne ñaari jabar yoo xam ne tolloowuñ duñ ay nawle ci wàllu situation ci wàllu situation maanaam kenn ki moom xëy na ca taaxu yeel dëkk xëy na dëkkoon ci étage ak yu mel noonu kenn ki moom ca dëkku àll ya la jógee xëy na ay këru yu yamamaay rek la xamoon mu ne daa dégg ñu wax ne kooku jëkkëram waru leen a yamale déedéet loolu nag njuumte la kenn waxut ne waru leen yemale déedéet loolu waxee su ko dañoo wax rek ne jëkkër seen jëkkër jëkkër seen jëkkër ñoom ñaar am na sañ-sañu kenn ku nekk kenn ku nekk mu jox la la dëppoog yow waaw waxut ne waru su leen yemale déedéet bu neexee borom këram moom mu dugg leen seen kër ku nekk mu jox la sa néeg jox la la nga war def wala ku nekk mu tabaxal la étage loolu moom bu ko neexee def ko kon nag nit ku ne farfos dagul def waaye jëkkër ji nag boo ko neexee dëkkoon ci dëkku taaxee bu ko neexee mu dëkkal ko ci étage kaca des bu ko neexee mu xool lam dëppool mu dëkkal ko fu mel noona te su boobaa du xañ kenn xàqam ku ci nekk jox na la la nga yeyoo anzilun naasa manazilahum yonent bi nee na nit ku nekk danga nga koy wàcce wàccuwaayam incha allah am na koo xam ne bu ñëwee mën nga koo dalal jàmm fonk ko jox ko mu lekk jox ko mu naan dalal ko fa wax am na koo xam ne bu ñëwee moom dëgg na koy fonke du bokk ak keneen loolu yàlla moo bindee noonu jaami fii euh, ci àdduna nit ñi dañoo ëppante daraja lool nag du gën déedéet waxuñu gën waaye ëppante daraja nii fii ci àdduna te nag wala laaxiratu akbaru darajaat wa akbaru tafdila kon nag kenn ku nekk da nga koy tereet nam te ki nga xam daa jóge ci àll bi nga xam ne moom ci sàkkat la dëkkoon xam ne boo ko joxoon boo ko tabaxalee foo terrasse mu sant lool ndax yokk nga maqaamam te dëkk ci étage mooy ne nga tabaxool ko étage loolu mooy kenn ku nekk jox nga ko darajaam waaye teewul nag bu ko neexee te sax la gën a rafet mooy ñoom ñaar ñëpp mu dëkkal leen ci benn dëkkuwaay Euh, su ko loolu mooy la gën a rafet waaye nag waru ko bu ko neexoon daal kenn ku nekk mu wàcce la wàcc waayam loolu da koy neex rek te kenn du ko wax ne ko dangaa lu tax kee nga di ko dëkkal ci étage kii nga di ko jox foo terrasse wala ab terrasse ko wax ne ko dangaa jéng déedéet suba loola sañ na ko loolu lañ loolu lañ jubla wax waaye waxuñu nag faaw da leen dëkkale noonu wallahu taala alamu ci loolu dong lay yem ci lool dong waaye bu doon ci wàllu ay ay moom ñoo ci yem képp ku takkoon jigéen ji gën a foor ci adduna bi di doomi yonent ak nga takk jigéen ji gën a xeebu aw askanit wàllu ay ay looma ñoo ci yem képp waaye nag wàllu situation wàllu la ñuy lekk ak yemel noonu ku nekk mën nga ko jox xàqam la nga xam ne boo ko joxee loola dana tolloog moom moom dana ca bég loolu rek la wallahu taala alamu bismillah mu dee laaju mbokk mi mu ne dëkk boo xam ne dañoo amoon ngàntul julli ajjuma ndax amuñu jumaa te jumaa mënta ñàkk nee na buñ demee ba yàgg ñu daal tabax jumaa ba kuule ko ndax lislaam da leen di wax ne comme kóole ngeen ko rek léegi da ngeen war a tàmbalee julli wala ko dañoo war a bàyyi ba àggale waaw heure bu ñu demee ba jumaa ja ñu mën faa taxawal julli incha allah nga ne jumaa ja daal mook mook dëkkuwaay yi ñoo tolloo nga ne na dëkkuwaay yi mel nga ne jumaa ja nam mel daal kooku amul sa kër di fa dëkk mën nga faa dëkk te kenn du la xas buy taw doo tawte naaju du la yàqal waaw su boobaa rek loola farata ja mat na kon dañoo war a daal di taxaw ci jéem a taxawal ajjuma ja buñ ko deful rek xëy na nag kilifa ya kilifa ya ñooy responsabilité ba kon kilifa ya war nañoo góorgóor ba bu loola xasee ba am rek ñoo xam ne kon ajjuma war na waa dëkk bi ko war di julli bu fekkee kilifa ya nag jumaa ja kon su boobaa nag ña ngay eh, jalgati lislaam te ña ngay amel xàq waa dëkk ba wallahu taala alamu sawaaba bismillah mbokk mi laaj ndax dagan na alquran ñu suulaale ko akub néew ah déedéet bu fekkee dañ koy suulaale directement ak néew bi day kooku du daga ndax lan ndax day sobeewu ndax nit ki bu xasee ba faatu buñ ko suulee xam nga yaramee day soppiku day soppiku incha allah di am xet ah, subhanallah waaye nag yàlla noonu la bindee doomu aadama bokk na ci matatik doomu aadama mooy bu faatu woon nga bàyyi ko ci néew bi benn fan dong nag wax dëgg yàlla ah, yaakaar na danañu xawi suturaam doomu aadama loolu moo di ak mujjam la waykat bi noonu nit ak mujjam toroxlu na bu faatu woon nga bàyyi jëmm ja benn fan wala ñaari fan yaakaar naa doo ko defati ndax yaram wa day soppiku ah léegi na nga jël alxuraan boole kook loolu bu demee ba yaram wa loola di laal alxuraan ja loola deesu ko def incha allahu rabbi bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ki nga xam ne day jaay lu mel ne ay añ xanaa njóobeen yi jigéen ji nga xam ne day jaay lu mel ne añ nga xam ne moom ajjuma waru ko bu fekkee ki muy jaay añ moom it musaafir la nga ne ajjuma waru ko ndax dana dagan tontu li mooy waaw dana dagan waaye nag gënut la gën rek booy bu ñu xasee ba noddu daal euh, nodd gi ñuy taxawale ajjuma ji ñu arrêté lu ñuy def incha allahu rabbi bàyyi ba jumaa ji julli lu ñuy def ñu koy doog a def loolu moo ëpp ay teggin waaye bu dee farata ji nag incha allahu rabbi bu dee kiy jaay moom ajjuma waru ko kiy jënd ajjuma waru ko suba kon jaay ma kenn téereetu ko ndax la tax ñuy tere njaay ma rek mooy téye gëm lay téye ba doo mën a jullite ajjuma waaye bu fekkee ne ñoom ñaar am na ko ci ajjuma war suba loola ña ngay def lu xaraam waxuntumaag nag bu dee ñoom ñaar ñëpp ajjuma dalee na ajjuma dalee na war wallahu taala alam bisimilah mu dee mbokk mi laaj lu jëm ci wàllu pari foot maanaam daal xeetu carte équipe yoo xam ne football guñ nga daal di tàndaatu daan équipe nangamay gagné man na am 2-0 lay gagné wala nangam su ko defee bu fekkee loola am na ñu jox la xaalis boobu nga perte waaye loolu mooy carte bokk na ci bàkkaar yu mag yi bokk na ci lekk riba mooy xeyalu xaalisu carte alxuraan da koo tudd innamal xamru wal maysiru la ci alxuraan rek mooy carte mboolem xeetu carte yëpp xaraam na te riba la ci yàlla musal wallahu taala alam bismillah bu dee laaju mbokk mi muy laaj eh, aaye ji mujj ci inna fataxna mooy suratul fatx aaye ci mujj xam naa mooy muhammadun muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari bam jeex aaya jooju de ci tënk ni ko mbokk mi waxee rek laaj yu ci alxuraan dañ ko faral di jéggale dañ ko faral di jéggalu bokk waaye buñ ko tënkee rek mu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy yonentu bi yàlla bi ak sahaaba ya nga xam ne ñoo ko gëmoon ci abu ak omar ak osmaan ak ali noonu la ibnu abbas firee ñoom de ashiddaau ala alkuffaari dañoo taroon lool ci yéefari ay ci ñoom lool ci wàllu ray leen ak bundoxatte leen ngir jëmme yàlla rek waaye roxamaa bay bu dee seen seen biir ñoom julli ñi nag dañuy yërëmante ku nekk di lay biir sa morom léegi nag bu dee suñ jamono dina gis koo xam ne day mën a def ak tubaab bu demee ci tubaab bi day yaru lool waaw tubaab bi dañoo baax nangam waaye daal di bon xol lool ci jullit ñi safaan bi lay def waaye ashiddaa'u alal kufaar boo amee ak bon xol wala sak tar na ko yéefari xam sa ma yërmande na ko jullit ñi xam rukaan sujjadan taraahum rukkaan sujjadan nga da nga leen gis fu ñu toll di rukkoo ak a sujjoot muy jaamu yàlla julli ak yee ca aju te loolu nag defuñu ko ngir ngistal waaye yëpp nga xoon fadla min allahi wa ridwaan dañ koy def ngir eh, jëmmi yàlla rek sa borom subhanahu wa taala nga ne boo gisee seen xarakaane mi da nga gis màndarga min athari sujud te it noona la leen tawreet ak injil waxoon na ko ne yonent bi saa sax dana ñëw bu ñëwee dana ànd ak ay nit ñu ko gëm te noonu la leen mele la woon aaya ji daal daanaka ci tënk rek loolu lay wax wallahu taala alamu sawaaba bu dee laaj mbokk mi laaj jigéenu jullit bu fekkee ne mook ay mbokki jigéenam doo nga nekk ndax sëñ naa dindi muuraayam la gën de mooy mu bañ koo dindi la gën mooy mu bañ koo dindi waaye nag jigéen mook ay mbokki jigéenam boppam nekkatut awara maanaam daal bu muurut boppam te ay jigéen doo fi nekk wala boog sax ay góor ñoo xam ne góor ñi dañ ko xaraam ni ki rakkam wala magam wala yu mel ne baayam loolu nekkatul xawra waaye nag ba tey danañu sip mu di ko feeñal la gën rek mooy mu mu muur ko ku mën a ñëwit mu muur ko rek ndax di ko muural jigéen ñi loolu dana ko dimbali ba eh, la góor ñi xam ne amuñ ca wàll ndax ñaa kii de am boppam même bu fi ay jigéen nekkee sax du tax moo sañ koo feeñal kon nag loola gënut waaye bu ko defee nag du ci am du ci am benn bàkkaar incha allah wallahu taala bisimilah bu dee soxna si mu ne borom kër bu fekk soxnaam muy nelaw ba nekk ci ay digg nelawam mu borom kër bi yee ko ngir bëgg a joteeg moom soxna si ne ko teg maa jéggal ndax damay nelaw mu ne loolu ndax soxna si da ci am bakkaar déedéet du ci am benn bakkaar déedéet du ci am benn bakkaar premièrement mooy borom kër bi wut fekk soxna sax muy nelaw ba jàppanteeg nelaw yooyu mu de ko yee loolu bokkul ci teggin bokkul ci xor ma incha allah kon daal bu fekkee ne wóor na ne soxna si mi ngi nelaw te du ay tappale du dara kon borom kër gi na ko ko jéggal jërutoon sax mu di ko yee bam naan ko jéggal ma ko waaye wala waaye bool bu di ko yee nag mu ne ko xas naa jàppantee gi nelaw kooku lëggan rek mooy mu bàyyi ndax lu jëm ci wàllu jotee góor ak jigéen daa doon loo xam ne euh, consentement da cee am solo maanaam ndaw si pare euh, pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale euh, sallallahu alayhi wasallam ne bu ngeen jaxasoo góor ak jigéen da ngeen koy waajal jiital ya war a jiitu li ñu tuddee muqaddamatul jimaa defe naa moom la tubaab yi wax préliminaire ya war a jiitu ci ay waxtaan ba nga xam ne ñoom ñaar ñëpp seen yaram dana yëg ne ñoom dañoo bëgg a jaxasoo su ko defee ñuy doog a ñuy doog a jaxasoo te it boo xoolee ci wàllu wérgu yaram ci wàllu psychologie loolu day baax lool incha allah kon nag koo fekk muy nelaw bu même bu d'accord nit daanaka jaxasoo ba ah, da du tax mu am solo dañuy bëgg ñoom ñaar ñëpp ñu yëg ko bu baax ba seen yaram yëg ko loolu lañ ci lañ ci bëgg kon nag borom kër nit kuy tëdd di nelaw du worma du ay teggin sax d'abord nga di ko yee waxantuma nag eh, nga sàkku ci moom lool mun la jéggal ma ko nga bëgg ci jàppe am mer nag déedéet wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee mbokk mi leerlu ne bu fekkee dafa am doom nekk bitim réew ci misaal kilifaam mbokk mi laaj moo ko wax mu ne kilifaam jël doom ji am kum ko tudde eh, moom ba mu ñëwee turoo neexu ko ndax sañ na koo changé li ma jaaxal ci wax ci kay mooy sa kilifa xam nga kilifa moom jeexal na wax euh, kilifa mooy ki nga xam ne yow yaa ko jiital euh, def ko muy sa kilifa nga ne sañ naa sañ na laa defal sañ na laa waxal kooku nag bu la tuddalee kon tudd ma walaa bal na incha allahu ndax boo wëlbati ko dindi ko la muy tekk mooy nekkutoo sama kilifa loolu tekki kon daal bu fekkee tudd ne ko turu baax tur woo xam ne lislaam amul dara lu cay gaañe incha allah te yow yaa nangu mu nekk sa kilifa wala boog yàlla moo ko dogalee noona ah su boobaa la gën rek mooy nga bàyyi ko noona bu fekkee nga da koo tuddee turu bon bu la dee ne ko ah, wax dëgg kilifa gi wala sama waajur tur yi kat rafetul ci lislaam ndax lislaam lu mu nanguwul moom sañ nga caa kaas ah, ndax sa kilifa kat bala ñu laa may nga nga di ko topp mooy mi ngi jaar ci aw yoon mi ngi tegu ci lislaam waaye bu dee ba ci lislaam nag kooku bool ko topp wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'uma buñ la digalee aw njombe nag kooku moom bu leen ca topp la ñu nekk nekk sa kilifa kon nag bu fekkoon da ko tuddee turu bon wala boog mu tuddee ko ku yées koo xam ne xëy na xaalis wala intérêt dong tax kooku mën nga ne ko ah, tur wi nga tudde sama doom ji moom du baax dañ koy dindi dama koy tudde neneen su boobaa nag yaa nekk dëgg waaye nag ko teg ci xorma na ko teg ci ay argument yu leer yoo xam ne ak ñàkk teggin du ca du ca du ca am waaye bu ko tuddee turu rafet ak turu baax wala mu tuddee ko ci famille bi ngir gën a gën dëgëral lu baax boole ci muy sa kilifa kooku la gën nag mooy nga bàyyi ko noonu du du ay teggin nag nga ñëw di dindi loola boo ko dindi woon it nag sa doom la sañ ko ko xanaa day ñaaw te day yàq ak mbokk rek nag wallahu taala aalamu sawaab wa ilayhi almarjiu wal maab bismillah dee laaju mbokk mi muy laaj ne dañuy tere imaam di xutba ñuy wax man léegi imaam nag bu demee ba xutba bay ñaan eh, lu mel ne mu naan yaxfirullahu lana wa lakum wa li saairil muslimin loolu mooy yàlla ñu yàlla jéggal te jéggalaale jullit ñëpp léegi nag ndax sañees naa wax amin waa xam nga imaam xutbaatul sëriñ bi da nga koo seetluwut ba imaam bi xutba moom kenn sëñ ta wax waaye ba imaam demee ba xutba ba jeex léegi day ñaan ñaan nag foo ko déggee amin mën nañu wax amin yàlla na yàlla nangu ñaan kon <laughs> da koo seetlu daal ñaar bokkuñu bi muy ñaan xutbaatut léegi day ñaan kooku nag mën nañu wax amin ba muy xutba nag kenn sëñ ta wax ndaxam sax ba muy xutba ci boppam bu bu xutboon ba mu yàgg mu wax dara loo xam ne jar na amin kooku maris naa wax amin niki mu xut xutba ba ci biir mu tudd àjjana moom imaam bi euh, dégg nga daan yàlla nañu yàlla yàlla na ci yàlla dugal niki mu wax ba yàgg mu ne wajj euh, mu tudd jannaatin tajri ba mu waxee daal làkk ci arab daane adxalanna allahu euh, fi jannatihi wala yu mel noona kooku moom mën nga ne amin wala mu tudd sawara incha allah daal di ñaan daal nañ ci yàlla yàlla nañ ci yàlla musal mën nga ne amin ndax lool moom diggante bi nekkatul xutba waaye wàllu ñaan la dara nekku ci wallahu taala alam